Amadou Sow secretaire général des jeunesses socialistes du département de Dakar ñu ngi leen di nuyu euh, di sant di gërëm bu baax a baax euh, tous les camarades socialistes aujourd'hui qui sont euh, venus répondre présence présents à à cette rencontre ginnaaw loolu dañu bëgg a tënk li nga xamante ne moom la ñu fas yéene jébbal presse bi comme déclaration Euh, ñu jàllale ko euh, waxtu wi ñu toll tey euh, kenn ku nekk ci ñun am nga ne xam nga ne li nga xamante ne mooy personnel politique gu parti socialiste jot na ñu soppi ko ñu changé ko loolu moo tax tey ay ndaw yu bokk ci benn ci parti socialiste ci fépp ci réew mi dajaloo sos kuréel gu tudd cadre d'action pour suqali parti socialiste parce que jàpp nañ ne waxtu wi ñu toll tey parti socialiste doon na parti bu nga xamante ne dafa sëngéem loolu nag tax na ñu bëgg a fàttali ay jamono depuis 2012 gënoon na métti parti socialiste organisé wu faire face faire def opposition ak Ablaye Wade am taxawaay boo xamante ne mooy taxawaayu opposition républicain cette opposition républicain loolu la parti socialiste mësoon a xam defoon na ko ak ay ndaw yu xarañ ndaw ñooñu tey doon nañ ñi nga xamante ne ci parti bi ñoom la ñu gën a sàggane ñoom ñoo gën a ñàkk yaakaar ñoom ñoo amatul Euh, ëllëg bu leer ci parti bi ba tax na ñu ne li ñu seetlu ci parti bi mooy jamono boobu ba léegi mu ngi ñàkk lu ñuy wax représentativité am ci élection yépp yi ñu weesu ci xayma rek ca 2017 parti socialist amoon na ñaar fukki député ñaar fukki député yooyu tey ñi ngi toll ci 2022 juróomi député wala juróom-benni député ñu gis na loolu doy na waar doon na loo xamante ne nii jot na ñun ndaw ñi ñu taxaw def ab seetlu ci dellu ginnaaw boobu parti socialiste am ngir ñu xool naka la ñuy def ba suqali ko dooleel ko def ko mu doon parti bi mu nekkoon démb ak bërki démb loolu ci tubaab moom lañ ci jublu ñu koy wax la réhabilitation du parti le positionnement du parti ñàkkul ne gis ngeen ne xëccoo ak xeex yu métti jamono yi am na ci biir parti bi ay nit ñu nga xamante ne seen njariñu bopp ak seen promotion bopp ak seeni famille moo leen gën a ñor que li nga xam ne ñun ñëpp moom lañ bokk ci biir parti socialiste loolu moo tax ndawu socialiste yépp dajaloo doon benn fas yéene loolu noonu nga xam ne ñu ngi koy gis mu am ab soppeeku soppeeku boobu nag liñ ci jublu mooy fexe ba parti socialist delluwaat ci li nga xam ne moom lañ ko xamee woon muy cosaanam muy parti boo xamante ne parti bu fees dell ak palaasam la loolu noonu ci gàttal ci xayma mooy li nga xamante ne moo tax a jug suñu kuréel gii ñu koy woowee cadre bi nga xamante ne ay action lay def ndax bu ñu jógee ci lii dañuy def yeneen action yoo xam ne lépp ça dans le cadre de réhabiliter le parti socialiste jox ko turu ak wayu démbam ñun ndawu socialiste jàpp nañ ne situation bi nga xam ne moom la ñuy dund situation bu jafe la bu métti la ci parti socialiste ba tax na tey ñu fas yéene ànd doon benn booloo pour joxaat parti bi doole. loolu moo tax ñuy fàttali ki nga xamante ne tey wala ñi nga xam ne ñoo jiite parti bi bu ñuy falati beneen yoon ñi nga xam ne ñoo war a représenter parti bi ak fu munti doon wala ki nga xam ne it tey moo jiite suñu coalition bi nga xam ne mooy benn Bokk Yaakaar que buy tànnati ci ay nit ci parti socialist mu fexe ba tànn bi mu bëgg mu méngoog li nga xamante ne moom la waa socialiste yi bëgg moom la waa socialiste yi moom la parti socialiste di xaar rawatina ndaw ñi ndax ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu jox ay responsabilité daanaka dañu tëj seen ay bunt daanaka dañu dummóoyu ndaw parti socialiste loolu bokk na ci li ñu gën a naqari ba tax tey ñun ndaw ñi ñu booloo doon benn ngir xeex ko mu am changement changement boobu nag kon ki jiite coalition bi ñu ngi ko ci interpeller directement di ci interpeller aussi la direction du parti gannaaw loolu danañu tàllal loxo képp koo xam ne socialiste nga nga demoon ba ñànki wala nga ñàkk yaakaar wala nga jaaxle xamal ne ay socialiste digne ay socialiste engagé ay ndaw pare nañ tey pour li nga xamante ne moo war ci kër gi muy renouveler personnel bi mooy soppi doxalin bi nga xamante ne moom la ñu gis ci parti bi ba mu méngoo ak bëgg-bëgg militant yi loolu nag moo tax daañu tàllal loxo képp koo xam ne militant nga ngay ndaw ngay mag ngay jigéen ak foo mun ti nekk ci Sénégal ngir nga ñëw fekk si ñu ci xeex bi nga xamante ne dëgg dëgmal nañ ko ngir joxaat parti socialiste li nga xam ne mooy démbam ak bërki démbam te loolu mébét la kon ñi ngi ciy lancé appel képp koo xamante ne wax dëgg yàlla parti socialiste ñor na la gannaaw loolu dañuy tàggatoo di sant di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne yéen ay presse bi di gërëm jeunesse socialiste yi ñëpp ñi teew ak ñi teewul ndax cadre bi nag regrouper na ay ndaw yu nekk fii ba Kédougou waaye jàpp bi ñu jàpp app bi pour def déclaration bi xat-xat boobu moo leen permettre munuñu ñëw mais ki nga xam ne moo def modération bi di le camarade Coumba Ndoffène Diouf dafa jóge ba Kaffrine ñëw léegi gis ngeen le responsable de l'union régionale de Dakar ñëw toog ñu koy wax mbay seen ak ñeneen ñu nga xamante ne ñu ngi ci kuréel gi ànd ak des camarades de du département de Pikine kon loolu day wane tey bennoo bi am ci ndaw ñi ndaw socialiste yi ngir joxaat doole parti socialiste ñi nga xam ne nag ñoom lañ joxoon tey responsabilité ak rôle pour ñu xeexal ndaw ñi dañoo wane ak yàccaaral ak seetaan ànd ak complicité ak direction parti bi loolu moo tax ñun ñu jël suñu ay responsabilité wax jii nag épargné wul kenn ci parti socialiste bàyyiwul kenn kon foofu la ñuy tënkee suñuy kàddu di jéggalu fexe nañ def exercice de résumé ci wolof ci li nga xamante ne moom la ñu tënk ci suñu texte en français